e mi salmini on onon fof kala kedido garɗo e inde bana bana a salminama kadi a yettama e haalam en wawno ñakkude ni mais kadi ɓe jaaɓi wawa ñakkude il faut mi haala hen eyi min kam woni ko jinmi tan ko kala garɗo ɗo aɗa ardi ɗo pour sababu jeeyede fedde bana bana mbatta hen haqqille no fewi parce que min mi yirani ɗum ko ɗum cahan tinmi hen ko ɗum gonga ɓolo tinmi hen ko ɗum nafoore mere ɗum tagui mi jooɗani ɗo kala keptinɗo gonga ene hen yo ar naata hen min ko ɗum woni ko eragam kala gonɗo ɗo ene ardi ɗo pour jeeyede e comité bana bana comité bana bana wona hunde hoyde par ce que ko relation nafo woni ɗo kala gonɗo e commerce e nde ɗo hettere wat feere kaɓɓa hoore ma gara naata e nde ɗo fedde par ce que gueɗe ma fo ene mbawi gasde e nde ɗo fedde min ko ɗum woni yiyandam eyyi ko heddi hen kon noon ko jomum arata abbo yurno holno wayi holle holno wayi so faami tini hen hoore mum ara naata goto foof ko mawɗo hoore mum eyyi gullol weeso magui nuyu ñeppu dilen ziyare ndax euh, li ñu dajale fii nekkul lu yomb fiñ ci jógee dafa metti pour ñëpp xamal ñu loolu ndax dañ ci doon xuloo dañ ci doon euh, waxante wax yi diis ba ñu arrivé si lii ndax fi ñu jëm lañ bëgg mu dëgër waaw affaire bi moom il faut ngeen xamal ñu ko loolu euh, laaj ci xaalis bi yombul nga ñaw taxaw si kanamu nit mu lay am nu mu lay jàppee ci loo xamante ne yéen ñëpp ci yem wala moom sa place la waroon taxaw nga ñëw bàyyi si yitte bàyyi si lépp nga ñëw taxaw si moom nga di ko laaj li nga ko war a laaj mu am lu mu si sànni ay baat wala yooyu te moom moo dugaloon boppam loolu il faut ñu éviter loolu képp ku ci nar a continuer na éviter loolu ndax loolu luy yàq ànd la soo xasee nga nekk magum jëmm nga ñu wax la benn mbir nga takk sa bopp ba nga dëgër nga dugg ci na nga ciy dem fulla ak fayida nga bañ a dem ba ci yàggal nga bugg ci doy dal ak ki nga àndal loolu man ànduma ci loolu si ñenn ñi rek laay sànni comme ça ñu bàyyi loolu xel ndax bàyyi sa place dem si nit di ko laaj dafa diis parce que dafa am lu bari li nga bàyyi pour yéen ñëpp waaw euh, waa añam nag maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ndax ñoom bëgg nañu comité baana baana te maa ngi laaj président benn faveur su ma ko nee may ndax am na ñu bëri ñu taxaw si gannaaw nee nañu dégg nañu comité baana baana euh, séentu gis nañ ci seen bopp nañ leen jàppale nu ñu duggee si comité baana baana. waaw lajj boobu nag si sama côté la parce que man dafa am loo xamante ne mëneewu ma ko mëneewu ma defar ay list dem naa ci Moustapha Sarr pour mu defaram ma ay liste nee na ma yow rek yaa ko mën a liggéey. ñooñu nag am na ñoo xam ne ñu ngi fii toog si jotaay bi ñëw nañu ndax bugg a bokk si comité baana baana. waaw nee nañu comité baana baana doy na leen ñoom bugg lu baana baana bokk rek ci loolu la ñu bugg a bokk waaw su ko defee daal ñooñu ñu pare leen su fekkee ne mun na sotti léegi mu sotti su fekkee ne mënul sotti leen ñu defal leen benn programme boo xamante ne day nekk bu taxaw bu amul luy tardé su ko defee ñu tracé leen yoon boobu ñu jaar ci ñu ñëw bokk ci comité baana baana ndax ñoom chaque jour dañ may laaj dañu bëgg bokk ci comité ñu defal leen benn trace boo xamante ne day leer nañ ñu jaar ci ñu ñëw tàbbi ci comité Baana Baana su ma amoon li ma ciy wax xam naa ne lii la rek maa ngi leen di jërëjëfal yéen ñëpp seen liggéey bi rafet na ànd bi nice na man kontaan naa ci ñëpp te merci. asalaamaaleykum communauté Baana Baana ñëpp maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen bëgge di leen nuyu leen ñaanal jàmm ak sutura leen ñaanal xéwal. di soññaat sama bopp di leen soññ rek xam ni ay nit moom fépp fu nu mën a ne suñu àndul rekk néewal leen doole day yomb te yaakaar naa suñu àndee képp kuy wax képp kuy wax wala ngay def ci ñun di nga xool li ngay def lu mu doon mooy soññaat ñëpp di woo ñëpp képp koo woyee foloon jàppal te xam ni jàpp gi mooy njëriñ mooy sunu njëriñ ñun ñëpp tey jii ñun ñëpp dañu waroon toog arrêté marché yi arrêté oto yi ñun ñëpp ñu daje fii ndax tey su ci kenn lenn lenn daloon rek ñun ñëpp na la taxawu fii yàgg nañ fi yàggunu fi néewal nañ fi doole baana baana ba tàyyi te du mujj fenn ñaata baana baana lañ fi faat fii ñun lu ñu xam te mujjul fenn te yaakaar naa su suñu demee ba am communauté bu mel nii képp kuy dal suñu kaw wala nga ñuy néewal doole di nga am loo xalaat kon nag maa ngi soññaat sama bopp di soññaat ñëpp ñun ñëpp ñu jàpp ci te xam ne jàpp gi mooy suñu njëriñ dinañ fekk suñu bopp fekk suñu alal nañu gën a góorgóorlu bu baax te jàppalante wasalaamaaleykum wa rahmatullah en njetti yalla en juuleynelaaɗo e en jetti jinnaaɓe men ɗiɗo ɓe en jetti président comité bana bana kala e kuuɓal Kono tan jettirten men dokke baadiwɗo wuri do o haali ko haalata do ko ko welanno e haala ko fof haali en jetti edikan, gorko mo en jetti idi kan gorko mo gijo min calmini min beltinimama min biima bismillah min ji darne ma kadi min jiima e galle o e kumbital mi mo dum do min biima bismillah ko wana dum ko erangam fay koye onon ɓiɓɓe fulɓe mi wi moon kala jibinaɗo ɓe reedude fuuta mi sikki fedde annani ɗum nde wonno enen jibinaɗen tan koye pelle kono noon e yiyandam enen ɗesilloode seeɗa e nder communauté e bano bana ɗum ko erangam fangal moon taw ko heeringu so ndene woni sukña noon ko ɓiɓɓe yuma jewtitta ɗum o wadde noon ma muusa kono hoto ƴeewe kalami ɗo ƴeewe to jofotomi to bandiraɓam ngari en denten kala ko renti huule herse ittane gueɗal dental woni doole comme no yimɓeɓe keewi wirude ni goto e men foof yo ar adda hoore mum e dental ngal hollita dental ngal nani e dental ngal daro feññito nde wonno hay goto ɓuranɗo ɗo keddiɗo o E dental ngal wonanani ɗo jolfo wonanani ɗo sarfulle o wonanani ɗo ede bambara hay e haal pulaar ko enen foof kala jeeyiɗo tan comité bana bana ene werti junngo muɗum yiilo tan komo yaadi so tawi noon oɗon gonɗi oɗon jiiɗi ko gonɗon ko oɗon jiiɗi jeeyde e ndel dental ngal on garat kolli toon koye mon walla ni garon kolliten koye men min de soko allah mbeɗe manki yiitade hooram e moɗon nde wonno so tawi mbiɗa yeccito mbiɗiyam yiyamo caggal mbiɗa suusa kono kadi ne jeccitima mbiɗiyam oɗon oɗon ɗisi seeɗa kadi ne hersini welani noon kono fof ko haale haade wontino ñoore kono don e peññinta ɗum nanɗo moƴƴi monnanani kadi ene kam kene ummiɓe pour yaade wadde noon gaare comité bana bana bisimima moon waɗani comité bana bana bisimina men ko inde nde tan woni nde wawa changade kono enen foof ken gotum jarani haalde ni heewi en goniɗo ɗo ko ɓooyi duuɓi duuɓi aɗa yiya yimɓe ndenda suudu ni so pini goto ko hoccata sac mum dawa so arti lelo taw ɓe ngalda haaju allah waɗi noon en dañi laawol ngol mbawɗen rewde ha mbawen yewtidde pijen jeelen jewten hen jokkidiren hen ko nafoore mere mere wonɓe ganduɗa ko fedde nde rendin ɗumen kono ndendi ko adi fedde nde ko wayno souleymane diob mi watta présenté makkunema moon oɗon gandi abdou fall kasalik komi goni mawɓe amen eko wonɗo ko foof haala noon so juuti tan ñawat mbiɗa yinno haalde ha ɓuura ɗo kono mi reɓɓikino ɗo nde wonno koko yeeri te ko renduɓe yimɓeɓe ko rendi ɗo kone heewi goto foof ene yiiɗi ɗo haalde mi salminimoon mi weltima moon mbatto enen haqqille